Babacar xaw ma bu nekk Kéwoulo da ngeen li waa ji wax ci viol lan mooy viol c'est ce même gars qui se dit journaliste moom moo euh, moom moo demoon ba fa maison bis Ousmane ko doon fréquenté nekk déglu leen bu baax li muy wax foofu pour wax la ne yenn journaliste yi dinañ tax sax yow nga am doom mu bëgg nekk journaliste nga ne ko jamais déglu leen waa ji ci salle bi nga xam ne fa la yëf xewee chaise bi ngeen gis chaise u accompagnant la pour won leen ni la plupart bu ñu def massage nit ki bu ñëwee ak jabaram wala mu ñëwee ak njabootam nit ñi fi la ñuy toog ñu fekkee mais lu extraordinaire encore am na ci kaw Ousmane Sonko témoignage bi nga xam ne soxla si joxe na ko mais it ñeneen ñi nga xam ne euh, mës nañu maase Ousmane Sonko parce que bu ñu waxee Adji Raby Sarr balaa Adji Raby Sarr am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ko maase les témoignages sont unanimes dañu leen defal dana reconstitution pour won leen ni Ousmane Sonko ci ban sens lañ ko daan massé fii ci biir euh, salle la plupart du temps comme ni ko borom salon bi waxee Ousmane Sonko bu ñëwee fii ci Spa Dakar Beauté li muy def dafay toog ci chaise mu joxe li nga xam ne mooy ginnaawam pour nu massé ko mais li nga xam ne mooy euh, soxna si di euh, Adja Rabi Sarr wax te borom këru Ndeye Khady wax ko keroog bi Ousmane Sonko ñëwee position bi la tëddee te souvent bu tëddee lay jël yëreem mu daal di ko muuru ci kaw bopp bi pour ñu mën koo gis. li muy def mooy tëdd ñu defal ko massage bi. da ngeen journaliste bi nee na chaise bi mooy chaise u accompagnant bi muy toog mooy ki nga kiy maase ki mu àndal mais ci biir ay waxam pour wax leen ni nu ni nu mënee sos wax na ne Ousmane ko dafa tëdd déglu leen waat bu baax fi may lii dama koy avance sax dégg ngeen fii la plupart du temps comme ni ko borom salon bi waxee Ousmane Sonko bu ñëwee fii ci Spa Dakar Beauté li muy def dafay toog ci chaise mu joxe li nga xam ne mooy ginaawam pour nu maase ko mais li nga xam ne mooy euh, soxna si di euh, Adja Rabi Sarr wax tey borom euh, këru ndeyxat yi wax ko keroog bi Ousmane Sonko ñëwee position bi la tëddee te souvent bu tëddee day jël yëreem mu daal di ko muuru ci kaw bopp bi pour ñu mën koo gis li muy def mooy tëdd ñu defal ko massage bi. ok xëy na man maa déggul wolof man maa déggul wolof ne toog ak tëdd benn la yow war nga chaise u accompagnant bi Ousmane Sonko doonul woon ñëw ak accompagnant nga ne dafay toog nga ñëw andi nit pour mu tëdd muur boppam ci position bi Ousmane ko doon tëddee xëy na tëdd moom ci làkkam toog lay signifier pour wax leen ne gars yi tellement ils sont ci kiiwu Cheikh Yérim mi ngi seet nu ñuy enfoncé booy bi pour tëj ko ci kaawu Ousmane Sonko ñu accusé ko viol mu am 46 ans ki ku ko ki ko accusé viol am 20 ans ñu nekk ci ñu dem foo xamante ne c'est pas un endroit boo xamante ne mën nañ fa werante viol ak yooyu moom mu toog di expliquer lii di sos est-ce que ñun dañu war a toog di continuer di bàyyi yenn journalistes yi di sos pour di yàq dëkk bi kii bu nee nee na journaliste la à partir de tey war na mën a xoolaat boppam def na ay affaires yu bëri ah li détail bi gën a ndaw la ci lu may wane nii yor naa ay affaires yu bëri yoo xamante ne ca jour ba ba mu ko defee même bi muy posé question. femme bi moom salon bi ak jëkkër ji foofu dafa amoon ay erreur yu bëri ay bêtises ñuy dagg di dagg di dagg di kole mais da ngay xam nga ay fen ay sos du gudd fan te ku am nopp mu am dégg-dégg da koy dégg da koy sentir bu nuy wax pour wax leen ne am na ñoo xamante ne ils toujours prêts pour jaxase dëkk bi ils sont toujours prêts pour wax lu bon ci kenn mais ils ne seront jamais près pour wax pour wax dëgg ci ñi nga xamante ne aspirer nañ lu am importance mais doomu Cheikh Yérim Seck bi mooy kan lan la ñu mën a apporter Ousmane Sonko mii di laaj dëkk bi di sos di sos di sos yéen ay journalistes ñu ànd ak moom pour muy sos pour ñu yàq dëkk bi mais soo ay responsable nekk leen ay kilifa kilifa moom mooy lépp looy wax nga seet ci yàlla lépp looy wax nga seet ne lii dëgg la lii yoon la naa ko wax buñ koy nëbb naa ko fësal ba ñi nga xamante ne ñu ngi leen di nax wala amuñu jot di ñoo ñu mën ci jot mais ay ponkal yu toog di seet nu gën a mën a naxee nit ñi nu nu gën mën a sëlamalee nit ñi mais ça c'est honte ndax lan ndax benn nit boo xamante ne mësut a defal dara Sénégal ba fii ñu toll nii Sénégal moo moo koy defal ndax oto essence bi muy yor nii sax te demul assemblée ñoo koy jox ba mu mujjee assemblée ay xeex la fa andi ak ay xuloo